Euh, du mouvement pour la défense de la république moderne ba pare tamit mu nekk responsable politique euh, bokk ci alliance pour la république euh, nekk Dakar Plateau moom la ñu fas yéene seexal waxtaan René Pierre ñoo ngi lay nuyu. waaw Abdou Khader jërëjëf ma lay jaajëfal si invitation bi di ñuy bëpp. auditeur auditrice bu may déglu si Rewmi FM di jaajëfa borom kër bi président Manick Diop. Euh, René Pierre euh, yow me yow yaa jiite mouvement bi nga xamante ni moom mooy euh, Moder nga bokk ci APR sa mouvement bi kañ nga ko taxawal. mouvement bi mun naa ne ba mu nekkee Angleterre nekk coordonnateur APR en Angleterre dama yàgg seetlu ba ma nekk jamono PDS ba ma bàyyee 2004 laa démissionné en 2004. dama seetlu parti pouvoir bu ñëw day fàttale fondamentaux ma ne su ma ñëwee Sénégal dinaa tax tabaxal benn kuréel boo xam ne day màcc si wàllu réflexion pousser les jeunes à la réflexion parce que tey parti au pouvoir dafa nekk un laboratoire d'analyse de nekk loo xam ne day xalaat nekk think tànk boo ma ñëwee en 2012 ñibbi Sénégal identifier ay jeunes ay mag ay ku nekk ñoo xam ne un peu partout Sénégal ñu ne su ñëwee Sénégal yi ñu taxawal benn kuréel te mun naa ne maa ngi jaaj maa ngi nuyu au passage tous les militants et sympathisants du modèle parce que modèle dafa doon un mouvement affilié à l'APR loolu su suñ ko waxee rek am na ñoo xam ne tey APR intéressé wu mais à travers le mouvement dañuy dem ba am sympathie par rapport au président de lu muy liggéey moo tax ni ñu ne moderne doy na leen soo déggee ni ne mouvement pour la défense de la république comme dit son nom dafa am solo loolu c'est très important fi ñu toll ci réew bi noonu. Euh, d'accord euh, mais René euh, mouvement la boo xam ne ci biir APR la la nekk euh, mais est-ce que mouvement bi c'est c'est national ou c'est c'est international aussi. non mouvement bi soo xoolee dafa mel ni comme convergence socialiste mu doon mouvement nekk ci biir parti socialiste. MODER dafa doon un mouvement national international foo foo foo mu tudd xalaat Sénégal on a des répondant te am naa yaakaar boo ma njëkkee ñëw fi def émission am na ñu ma doon suivre ba laajte sama numéro ñooñu ba ñu bare ñu si bare c' est répondant répondants du MODER au Touba à un peu partout au niveau de la diaspora donc euh, MODER dafa nekk euh, kuréel boo xam ne day yëngu di jënd tàggat xale yi si wàllu luy politique parce que politique dafa ànd ak éthique ànd tey politique du loo xam ne da nga koy def ñu bari yaakaar Sénégal pour faire de la politique lan la am ay kër yu bare am oto yu bare alors que politique jaamu yàlla la. parce que tey bés boo génnee àdduna yow kenn yaa nekk si biir suuf seen mètre percale la tey mun naa ne mun ba may ñëw mun naa def parfum mel ni Jean-Paul Gaultier ou bien Guerlain mais su sooy dee kiki 44 la saabu bu 100 francs la ñampe bu juróom la donc il faut ñu ñëwaat aux fondamentaux pour wax fan ñu war a teg suñu tànk parce que réew bi. suñu ay maam ñoo ko tabax ku mel ni Léopold Sédar Senghor ku mel ni Ngalandou Diouf ku mel ni Blaise Diagne ku mel ni Mamadou Dia ku mel ni Abdoulaye Wade suñu tabaxee réew bi mel ni Sénégal donc il faut ni forcer les gens comme le Cheikh Antoine Diop waxoon rek éthique c'est important nit yi ni tàggat leen ni xam ne réew Sénégal ni la war a doxee warul suuxee. loo loo tuddee éthique. su ma nee éthique mooy lan nit kàddu dafa important jamono yi moom damay man damay tiit damay waaru lu xew si langue politique bi. damay gis ay nit yoo xam ne ñu fi toog yekk lu mel ni xemi président Macky Sall tey ni jékki-jékki ñoom tey ànd nax ñun de mais seen xalaat su baaxam démb yaakaar naa duñ ànd ñun tey tey yaakaar naa tamit politique c'est pas comme les relations amoureuses mun naa ne tey benn jigéen je t'aime mu mais en politique on peut ne pas aimer une personne mais on peut travailler la personne mais lu am solo rek man dafa am loo xam ne ma gëm lu si Abdou Lahad Mbacké wax rek sa kàddu démb dafa doon méngaloo sa kàddu tey te yaakaar naa ñun tey ñoo war tey suñu génération bi su ma génération bi ñu ñooy génération de 96 97 génération 95 ñun ñu am pour taxawaat pour delluwaat bumb fu mu nekkan ni ne ah waa góore waay doom nii na war a taxawee nii na war a dem parce que tey nit du foo jógee moo am solo lu am solo mooy nooy taxawee moo am solo moo tax nit ku ñàkk njëriñ amul bés bu njëriñoo nga xam ne kii moo am njëriñ war ni taxaw bu baax am éthique ni xam ne tey loo wax rek nit dina ne ah waa jërëjëf euh, René Pierre euh, Yahoume yow nga bokk ci euh, APR yaa ngi wax mbirum éthique mais yow sa leader tey man jàpp naa ne moom dafa jël éthique teg ko nële muy président Macky Sall muy tamit tey boo doon jël Sénégalais yi nga xamante ni fonk ñu seen kàddu man bu ma doon jël di dugal Macky Sall bu ma ko fekkee dama ko si dugalaale ñi nga xam ne tey dañuy wax dellu si ginnaaw. Macky Sall jàpp naa ne ci ñooñu la bokk beneen bi tamit moom dafay encourager loo xamante ni tey ay antivaleur la maanaam ñi nga xamante ni doxuñu ci éthique Macky Sall leen di encourager ni ma ko waxee li ma ko bëgg waxee mooy am na ñu bari ñoo xam ne dañu doon xëy wax ay kàddu ne du nañu ànd ak Macky Sall xas Macky Sall euh, lu ñu yàkk ko Macky Sall mais dañuy gis ne ñooñu tamit Macky Sall di leen di jël indi leen ci wetam ba pare dooleel leen ndax président Macky dafa am ñu ko doon jàppale démb ak bërki démb ñu si bari mu sànni leen fële jël ñi nga xam ne ñoo ko doon saaga démb ak bërki démb indi leen si wetam kon moo tax ma jàpp ne yow éthique bi ngay wax peut-être yow mën nga koo dund mais ñi ko ñi nga xam ne doxuñu ci éthique moom euh, nga baal ma mais su ma doon wax dinaa ci boole waale Macky xam président Macky Sall daf ñu tàmbal di wax ñun ñun ndaw yi nekk au niveau de l' alliance pour mu ne l' engagement peut s'accommoder avec l' tey dama gëm président Macky Sall moom président de la République il nomme aux emplois militaires et civils neex tey euh, soo gagné pouvoir pour conforter le pouvoir il faut am il am une majorité dina soxla ay ñoo xam ne tey ñu ngi bokk ay paat kuréel yoo xam ne bokk ni ak ñun mais dafa am loo xam ne man tey mun naa nekk si benn kuréel mais mun naa doon un élément à part man sama gëm-gëm laa waxee cest à que dans le parti là jaakaar naa c'est pas la première fois mu ñëw fii amoon na ay jamono ba ñuy déggee ay loolu ñu wax ñuy wax ay mburu asso ñu ne mburu asso mooy lan nit mu mënuñ liggéey ba dee ni dégg xëy suba nit ne mburu asso ñun bañu ne ko de mburu asso su amee suukar moo koy safal wala suukar vanille wala muscade ma ne balaa ñu doon suukar vanille war a doon loolu ñu doon poobar ak kaani ñun tey ay ndaw ñu war a changé waat askan bi changé waat Sénégal gis-gis mu demee tey président Macky Sall du ma du ma d'accord ak yow soo waxee parce que moom tey président de la République day tëddee ñege naay moom day xool loo xam ne tey sénégalais boo xam ne àndul wax fi nekk pour sénégalais boo xam ne àndul moom ak sénégalais boo xam ne fël la jógee soo demee même dans les grande démocraties dina gis tey soit Labour Party ak parti euh, conservateur kii day jógee parti conservateur dem Labour Party kii ñëw liggéey pour la cohabitation nationale c'est un président qui a toujours insisté sur le dialogue et je peux le comprendre sur ce sens-là mais ku mel ni que man ku mel ni que man ak ñu ma xamee Sénégal ak sama taxawaay su ma gisee des gens yoo xam ne tey ñoo toogoon di wax loo xam ne yekk xamee ku mel ni président Macky Sall surtout au niveau du département de Dakar bare na fi suñu waxee loolu man damay am lu may taxawee loolu c'est man la ça n'a rien à voir président de la République président de la République ak man bokku ni moom day doon nit boo xam ne c'est le père de la famille et dans une république il y a des mais mais mais mais mais mais Pierre. xam nga sànq yow euh, yow yaa ngi wax yow en tant que euh, Pierre ni la yaree euh, fi ñu la yaree ak li nga gëm mais mbiru éthique man jàpp naa ne wàllum fonk ñàkk fonk kàddu man dama déjà dama ci boole président Macky Sall ci Sénégal yi nga xam ne fonk ñu seen kàddu mais dafa am ñoo xamante ni tey par exemple tey ku si mel ni Moussa Sy mu baal ma mais moom kooku lu ne wax na ko président Macky Sall. ku ci mel ni Sitor nduur mi jiite woon kuddu jamono te dëkk Fatick mais lu ne wax na ko président Macky Sall ah na dem na baraan lii may wax sax enregistré leen ko bu ëllëgee su ma delloo ci Macky Sall mais ñooñu dañuy gis ne président Macky Sall da leen di teg ci wetam ñuy ànd ak Macky Sall suba ngoon guddeeg mais xale bi nga xam ne mooy seetaan télévision bi déggoon Pierre wax lii suba mu gis Pierre soppeeku ba pare ànd ak njiitu réew mi loolu tamit xale bi nga xamante ni xamagul dara mën naa jàpp ne kay li mu waxoon dafa dagan mais soo soo xoolee man tey éthique sax soo xoolee man ethos mooy science de la morale te su ñu nee moral am na ku mel ni Emmanuel Kant daf si wax saa dafa am lu ñuy woowee un impératif catégorique tey am na loo xam ne man waru waru mu a def loolu c'est-à-dire que nous devons de sorte que la maxime de notre action soit érigée en action universelle c'est-à-dire tey am na loo xam ne lu lay téye si biir yaram soo xoolee ceddo yi buñ ceddo yi bu njëkk ba ceddo yi ba Lat Joor dem xeexi Lat Joor ni nekk soo demee ngay dee mais Lat Joor day dem xeexi parce que jox dafa joxe kàddu askan mel ni Alboury Ndiaye mel ni Almaami Sambori Touré parce que ñooñu c'est des gens yoo xam ne dañu amoon éthique am valeur mais pour revenir par rapport à Moussa Sy man ba ñu nommé Moussa man yaakaar naa maa njëkk a contesté sa nomination bien que sax awma droit contester la décision du président de la République mais on est en politique parce que Moussa Sy y a dit deux choses mu ne Macky Sall il a un d'incompétent et de nullard boobu mun naa ko nangul c'est un opposant qui parle mais benn côté boo xam ne mënu ma ko nangul wax moom mooy lan le fait qu'il a dit que lay jàpp takk la yeew la comme xar yóbbu la palais nga gis la big boss ñu nommé le PCA ou nommé le directeur wala ministre jox la xaalis bu bare après ñu xool kooku waxoon loolu tey ñu nomee ko PCA au port soo déggee ñu wax wax ñu bari ñu yaakaar que ñun ñu am jalousie ñun du jalousie de cest à ñu que ñun tey lu ñu ko def lu ñuy def nii ñu ko gëm mais nit boobu tey su ñu demee si wàllu xam du mu si xuux sax xam naa si dugaat suñu demee si wàllu élection locale yi su ma gisee mu am taxawaay boo xam ne tey war na mun demander tey suffrage bi au niveau des Parcelles Assainies yaakaar naa war ñu ñoo am pour taxaw ne non parce que ñooy mouvement pour la défense de la République ñun on est là pour mettre les gens au garde à pour rappeler à ces gens là ñoom ëllëg daaw bañ fa nekk lu ñu doon wax tey président Macky Sall moo tax tey am ñu santaan ne tey au niveau des Parcelles Assainies ku mel ni comme Amadou Ba moom ba mu ñëwee si ba mu ñëwee ba mu ñëwee si ñun 2013 la nekk na directeur des impôts mu doon mu doon mu doon directeur général. président bàyyi ko foofu muy liggéey président jël ko mu ne ko kay jàppale ma doon ministre des finances président jékki-jékki nekk ah soxla naa la si parti bi ñëwul politique si la commencé politique ku mel comme kooku dégg ni luy wax lu moom dégg ni wax ko si lu nekk ma dégg mu jox kàddu bu ñaaw wala kàddu ordurier wax Macky Sall naka su noonu yaakaar naa Amadou Ba c'est un c'est un militant fidèle et dans notre parti le grade de plus élevé moo tax man soo ma gisee sax à travers ma page droit war a choisir entre Amadou Ba Moussa Sy laay kii laay choisir Amadou Ba laay choisir parce que Moussa Sy man euh, je n'ai xam naa ko je le je, je le connais au temps du PDS mais dafa am loo xam ne comme noo ko waxee léegi y a des antivaleurs nit. moo ah, tax mais mais mais mais René ah, antivaleurs yooyu ngay gis ngay wax antivaleurs yooyu ngay wax mais Macky Sall moo leen di jël taf leen ci wetam ñu leen di gis suba ngoon guddeeg bëccëg comme moom mooy daganal antivaleur. d' accord naa xam tey président de la république xam sànq wax naa la si njëblin man la président xam nga nu may xalaatee bokkul président il gère de manière globale dans sa globalité day xool comment il arrive à conforter sa majorité tey su gisee un pion wala une benn benn benn puzzle la mu xam ne kii mooy lélément élément essentiel pour que mu am doole mais ñun tamit duñuy ay euh, duñu ay mouton politique du du bible du coran politique engagement la ñun ku nekk war am xalaat tey suñu amul benn cadre boo xam ne war nañ fa mun toog di waxtaan di xalaat suñu wax tey président suy jékki-jékki nommé ma nommé ma du tàggu ay nitam day jékki-jékki xalaat René Pierre war na mun am benn fonction mu mun jox mu tekk noonu mais tey ku mel ni Moussa Sy mi def PCA port man maa ngi dëkk Dakar Plateau soo ma renforcé defal ma PCA port defal keneen PCA port defal keneen PCA port koo xam ne parce que moo tax ma wax loolu dama gis doo gis ñoom ñu bari si ñoom tey ah ils ils ont été avec Ablaye Wade am cent une coalition fu mujjee sénégalais yi ñoo leen sénégalais yi leen vomir ces gens là ils ces gens là ils ont mais tey man j'appelle à la j'appelle au bon sens des sénégalais j'appelle au bon sens des républicains il est temps les gens de l'APR se lèvent en un seul mot pour dire que ñun aujourd'hui nous sommes prêts à le président de la République parce que président balaa muy dem balaa muy dem feneen te tamit damay d'accord moom dégg naa tax temps yi war na am benn seen secrétaire national exécutif du parti boo xam ne pour xool comment nous allons faire pour juguler suñuy force balaa ngi dem waxtaan ak coalition benn bokk yaakaar parce que nit soo bàyyi sa kër bàyyi sa ànd dama benn ànd yaakaar naa loolu baaxul. Ah, mais mais euh, mais René Macky Sall moom man nañ koo tuumaal lu nekk ba mu des euh, APR ndax Macky Sall benn bokk yaakaar sax mm, euh, président Macky li ñu gis. mooy ak par parparloo goo xam ne moom lay def lépp lu baax ci benn Bokk Yaakaar mu jox ko ñi nga xam ne euh, ñooy waa APR war taxas féetale genn wet moom loolu lañu leen di tuumaal ndax ndax yéen sax am na ay maire yoo xam ne sax loo xamante ni sax dafa rafetul ci ànd ay maire yoo xam ne dañuy nekk ci beneen parti Macky Sall bu leen mënee fexe ba indi leen tey ci biir APR day fexe ba indi leen ci biir ci biir APR loolu moom jàpp naa ne René moom loo mën a wax ci Benno Bokk Yaakaar gis nañu ne Macky moom euh, lu baax mu jox ko waa APR. mais sëñ bi man dama la wax benn affaire le président Macky Sall nu ko xamee tey mun naa ne soo xoolee au niveau des institutions ñoo fa nekk du waa APR ñoo fa nekk de tey soo demee lu mel ni lu mel ni au conseil des cultures territoriales territoriales du APR moo fa nekk de Aminata Mbengue Ndiaye moo fa nekkan de tey soo demee euh, conseil économique sociale président Idrissa Seck moo fa nekk soo demee tey assemblée nationale ka moo fa nekk du Moustapha Niasse du AFP donc wax ma la la waa APR am yaakaar naa yooyu sëñ bi may ma ñëw a ma posé question yaakaar naa yooyu moo gën a important si wàllu institution si réew mais tamit su amee su amee loo xam ne soo xoolee même premier gouvernement président de la République dafa jël benn majorité boo xam ne on sentait même pas l'APR peut-être deuxième remaniement bi ñu gis que waa APR ñu senté seen bopp si biir moo gën am ay ndaw mais ñun tey li ñuy wax rek waxuñu tey seen président Macky Sall dafa am lu benn philosophie bu muy wax mu ne on gagne ensemble on gouverne ensemble mais néanmoins il faut savoir que ñun tey bañu ni loolu de mais il faut renforcer mooy ñoo xam ne ñoo fi nekk nekkan dëmb ñoo fi nekkan tey di la jàppale parce que ëllëg kan xamul luy xew en plus man dama am lu ma gëm mooy damay euh, vigilant mooy par rapport à beaucoup de choses tey imagine tey ni dem dans les communes au niveau des élections que communes yi on se retrouve que ñun tey euh, parti yu bëri yoo xam ne am na parti yoo xam ne si coalition bi ànd ak ñun am na communes yoo xam ne ñoo ko gagné mais ñun tey am na communes yoo xam ne tey suñuy demee ba ëllëg ñoom ni gagné communes yooyu yëpp ëllëg mënuñu wër ndomba ne ñoom ñooy changer vision parce que politique tey ku nekk day xool intérêt dama ne tey nous devons faire attention nous devons penser nous devons penser à pair nous devons réfléchir à pair loolu mooy lan c'est-à-dire que il faut d'abord ñu am benn cadre boo xam ne ñuy régler suñuy problème suñuy divergent au sein de notre parti parce que tey xam yoo xam ne ko journaliste na vous êtes éveillé a beaucoup de il beaucoup de communes yoo xam ne tey su suñu deful nank leneen mën na fa am frustration mën na fa am dina am kenn ñu am ñenn suñu ñun yoo xam ne suñ leen tabee nit tabee benn boo xam ne yaakaar nañ kooku ñoom mu ni mën a ma gagné ñu ngi dem tabb seen bopp parce que élection yi nii élection yi important la mais damay rappeler rek au bon sens de tout un chacun que élection yi bokkul ay élection 2014 élection yi extrêmement importante la am ay enjeu la enjeu la tey suñu si on perd ces élections c'est fini pour nous. d'accord mais xam nga René ñu revenir tuuti yaa ngi wax ci institution yi mais institution yi soo xoolee président Macky Sall dafa teg ñoo xamante ni tey dem nañ ba seen carrière politique jeex na muy Moustapha Niass di Idriss Seck di Aminata Mbengue Ndiaye ñooñu jiite ay partie yu mag a mag a mag président Macky Sall ñëw tënk leen dugal leen fenn ci institution mais tënk bi mu leen tënk nag mooy tax ñooñu mën a calmer. seeni man a calmer seeni militant calmer seeni leader Macky Sall mën a mën a xuus li muy xuus ndax tey commune boo xamante ni tey am na nitu euh, Idriss Seck ñu fa nekk président Macky Sall Idriss Seck lay waxal su dee tey waa parti socialiste Macky Sall euh, Aminata Mbengue Ndiaye lay waxal mais yéen euh, sànq maa ngi koy tey ci benn journal René mooy président Macky Sall fi mu ne nii su dee dafa bëgg a jël commune yépp fexe ba jël ay nitam waa APR dugal leen fa boobaa tamit problème mën naa am euh, ndax yow ni nga waxee nii da nga bëgg a fexe Macky la jël commune yëpp waa APR ngar daa jokk ndax élection 2014 yooyu ngay wax noonu président Macky Sall fexe woon na ba AFP li muy am am doole Kaolack fexe woon ba AFP amul doole jël Mariama Sarr dugal fa. Géejawaay président Macky Sall la fa defoon dem Diourbel Aminata Mbengue Ndiaye fa mu amoon doole fexe ba jël nitam euh, Moustapha Diop def ko fa mais su ngeen bëggee continuer noonu tamit euh, René dina nekk loo xamante ni du nekk ànd bu rafet. cest à pour pour euh, rappeler l'histoire yaakaar naa lu looy xalaat ni ah, lu am bokkul c'est diamétralement opposé en 2014 tout le monde sait que aujourd'hui pourquoi nous avons perdu ces élections il y a yoo xam ne APR am na fa six listes est que c'est la faute au président le président n'avait pas tranché man yàgg naa ne président musul ate xeex tey président mi ate xeex dégg naa mu ne y aura une y aura pas de liste parallèle mais su nekkoon président tey lu mu waxoon tey y aura pas si tournée bi mu wax ko en 2014 waxtaan ak gars comme ni mu bëggee def nii yaakaar naa problème du am c'est-à-dire que le président n'a imposé personne. 2014 personne man mi au niveau de Dakar Plateau dama la wax benn affaire au niveau de Dakar Plateau au passage maa saluer mon camarade de parti Salou qui est en train de faire un travail excellent maanaam moom ñoo nekk les deux tendances au niveau de Dakar Plateau à l'époque quand on nous avait convoqué à l'hôtel King Fahd il y avait le professeur Souleymane le professeur Souleymane Ndiaye c'est le moo le président a dit Diop si mooy son candidat à l'époque parce que dafa amoon ay euh, li ñu wooyee euh, li ñu wooyee département Dakar qui avait été confié par le directeur de cabinet à l'époque Augustin Tine c'était le superviseur du département Dakar dans chaque commune ñu xool tendance yu amoon yëpp mais au niveau Dakar Plateau li muy bare coow jamono boobu am na responsable mais président Manar Salou Keita yi ñu woo réunion si benn salle King Fahd ni ne Diop si la man tey su ma jamono boobu su ma ma ne ànduma wax Diop si mais pour un militant discipliné dama ànd ak lu président wax ma dem après par la suite j'ai vu président ba muy dem mosquée divinité mënu ma René na nga def ani Diop si man nga président sa soldat la loo wax laay def man si ginnaaw Diop si mais am na ñoo xam ne dans d'autres commune tamit déggul déggul ni mu président ils ont dañuy mené seen liste bopp parce que tamit dama leen nangul loolu tey sooy liggéey na xam ne wóolu sa bopp nga wóolu sa bopp na taba sa bopp mais tey loolu loolu la wax noonu moo tax ma ne loolu mënul nekk parce que jamono boobu noonu président imposé wul Mariama Sarr Mariama Sarr moo imposé boppam président imposé wul son frère Aliou Sall ce que les gens lui reprochent que le frère du président alors que moom dafa ñëw Guédiawaye dëkku fa mu ñëw fexe ba nekk fa ba gagné fa et pourtant am na ñu fa nekkal mu gagné fa et pourtant aujourd'hui soo demee Guédiawaye déjà Guédiawaye ça c'est en train de changer de manière de manière progressive donc pour wax rek ñun tey nekkoon ni si phase boo xam ne ñu ngi bëgg a lépp mais damay ne quand même il faut que ñu ñu waxtaan suñu biir ñu def waxtaanu biir néeg pas mu doon waxtaanu biir medd parce que mënuñu jékki-jékki ne dañuy dem ci élection local alors que waxtaan amul waxtaan day am au niveau de l'APR que ce soit ñun au niveau de Dakar Plateau ñun au niveau des responsables de l'APR man j'invite j'appelle au bon sens des responsables la l'APR Dakar Plateau balaa ñuy toog waxtaan ak Alioune Ndoye moom moo nekk maire de la coalition Benno Bokk Yaakaar président mu ne mais ça veut dire forcément avec lui. d'accord mais René euh, li nga wax sànq euh, sa xalaat la mais man sama xalaat ak information bi nga xamante ni am naa ko mooy 2014 euh, APR musul am base politique Kaolack président Moustapha Niass bu la neexee mën nga tàppe internet moom moo wax ne AFP du fa am candidat te René yow xam nga ne Louga APR musu fa am doole Louga socialiste yi ñoo ko Aminata Mbengue Ndiaye bu bu waxtaan amutoon ba mu bàyyi Moustapha Diop du ne Moustapha Diop du nekk maire AFP ñoom ñoo ëppoon doole géejawaay ba fa Malick ba fa Malick Gakou euh, di nekk mais euh, comme ni nga ko waxee tamit yow euh, am nga sañ-sañ si loolu. <laughs> ñu revenir ci élection yi yow yaa ngi wax sànq comme li président Macky Sall wax ci tournée bi mu ne benn list unique benn bokk yaakaar waxtaan war na ci am mais est-ce que tey président Macky Sall comme ni mu ko defoon 2014 ci Dakar Plateau exemple. moom est-ce que dafa war a imposer waa Dakar Plateau Moussa Sy la waa Dakar Plateau du élection présidentielle waa Dakar Plateau ñoom ñooy xool entre René ak Diop si kan moo si gën a kan lañ si gën a wóolu ndax président Macky Sall ni la Dakar Plateau xamee Dakar Plateau xamee ko Diop Sy Macky Sall xameewul noonu Diop Sy yow yaa leen yaa leen gën a xam waa Dakar Plateau René lañ gën a xam kon lan moo tax président Macky Sall bëgg imposer commune yi bëgg leen a jox ay maire sëñ bi sànq si waxtaan bi dafa am loo wax ne Moussa si Dakar Plateau man ma su Macky Sall doon imposé Moussa si Dakar man maa ngi njëkk taxaw ma dama bëri sama kuréel ma ne Moussa si mënu fa doon candidat parce que dëkku fa naa nga jub si nu boo wax ne Moussa si c'est un lapsus la moo tax. Moussa si peut-être sa xarit si laa bëgg wax. Diop ah, si mais jum boobu sax jum boobu <laughs> loolu président de su ko defee du imposer du imposer. Mm. dama la ne jamono boobu laa wax de ku mel ni Moustapha Diop man dama gis ni muy liggéeyee mu nekk Kaolack ni koy ni koy woyee xale financement loolu laa nu dégg ni koy wax di def ay kuréel di jàppale gars yi soo gisee Aly Ngouille Ndiaye au niveau de Linguère mu doon def au départ Linguère boo xam ne dafa metti woon pour ñu gagné fa. Mmh. mais Aly Ngouille Ndiaye dafa am système système nu mu politiqué wàcc ci terrain bi di financer gars yi financer jeunes yi et pourtant ay peu de moyens mu gagné donc ces territoires là cest à kenn moomul feemal la nature a du ñooñu tey c' est des gens yoo xam ne ils ont été renforcés nekk ministre man tey soo ma renforcé au niveau de Dakar Plateau sëñ bi leneen laay wax du ma ne dinaa gagné de mais en tout cas <laughs> su ma nekkul numéro un naa doon numéro deux. mais mais lan moo tax président bëgg leen a imposer seen maire. non président impose ñu suñu maire président dafa nekk président de la l'APR mu nekk président de la coalition benn Bokk Yaakaar tamit moom day waxtaan ay nawlem dafa ànd ak Moustapha dafa ànd ak Moustapha mu ànd ak ñoom Aminata Mbengue Ndiaye parce que feu Ousmane Tanor Dieng yàlla ko yàlla yóbbu àjjana yi gën a kawe moo fi nekk di waxtaan ak président ni nas defandoo lépp tey soo xoolee tey tamit dafa am une longévité de la coalition benn Bokk Yaakaar musul am dans l'histoire de ce pays une coalition qui a assez duré ah dans le temps et dans l'espace donc su amee rek c'est grâce au leadership c'est grâce au bon sens du président de la République moom moo toog waxtaan ak ñoom nit tënku leen du waxtaanu Sandaga du waxtaanu Macheti leen mais waxtaanu biir néeg la ñuy waxtaan mais suñu demee élection yi dem nii moom dafa ne la moo tax mu wax loolu. parce que tey bari na ñoo xam ne dëkk bi dafa bari manipulation ak manipulation parce que les peuples éléments sont ce qu'ils sont il y aura beaucoup de manipulation. Ah, soo soo demee soo demee de l'extérieur soo gisee Sénégal tu tu vous avez l'impression que le pays est en de lu am solo rek mooy lan Sénégal mu ngi dox c'est exemple de e les gens nous saluent les gens pensent que Sénégal tey bokk na si kuréel yoo xam ne ñu war a ñëw école bu baax la. donc lu am solo ci wàllu élection yi rek ñun président du moom mooy du moom mooy imposé de mais tamit sëñ bi anglais dafa ne if you cannot beat him join him tu peux pas le battre va avec lui mënoo ko dóor àndalax moom man tey lu ma am ambition. c'est pas de la prétention am naa ambition un jour ma nekk dara pour Dakar Plateau. mais tamit su ma demee ba xam ne ma xam ne loolu loolu c'est-à-dire que pour nit ki il faut na am sa ambition loolu américain boo pour your money wa your mouth defar sa xaalis pour sa làmmiñ nekk mais tamit dafa am ay réalité politique un parti politique c'est un parti politique c'est pas facile à gérer. d'accord mais xam nga ñu fàttali mbokk yéen a ngi déglu réew mi FM seen émission pencum réew mi euh, ñoo ngi invité euh, René Pierre euh, Yahoume mu nekk responsable politique APR ci Dakar Plateau mais xam nga René. élection locale euh, élection locale ci gox am na ñoo xam ne sax mënoon nañoo bokk ci beneen parti tey Dakar Plateau ñëw mën a ànd ak euh, ak René ci Dakar ci Dakar Plateau loolu lu mën a nekk la mais élection locale élection la yoo xamante ni élection gox-goxaan la ndax tey am na ñoo xam ne ci li ma xam man ay ministre yoo xam ne du ñu du ñu du ñu euh, surtout ñu dëkk ci kaw gi sama mbokk yi nekk maire très rarement la ñuy dem foofu bien vrai rek dañu am adjoint jege nañ président Macky Sall rek mais jegewuñu askan wi léegi jege gi nga jege président Macky Sall est-ce que foofu la ñu war a sukkandiku pour def la maire alors que am na ñeneen ñu fa nekk ñoo xamante ni tey ñoo gën a jege askan wi ñu la askan bi gën a wóolu mais nga bëgg a imposer kenn koo xam ne force su René daf ci ànd te même bu ci bëggut a ànd dafay respecter li nga xamante ni tey moom seen charte parti est-ce que loolu tamit nekkul loo xam ne la ñu war a xoolaat la. man damay nangul ak yow loo wax yëpp. c'est-à-dire que man j'ai toujours dit que faut un schéma il faut ñu génn ci schéma classique bi tey dafa am des primaires dans les partis politiques. Mhm. comme ni nga defee aux États-Unis ndax parti parti démocrate parti euh, républicain. c'est important loolu ça cela y va même de la vitalité de notre démocratie. Mhm. mais malheureusement il faut qu'on change les textes au niveau des partis politiques parce que ku mel ni Pastef benn nit moo fi nekk ku mel ni AP benn nit moo fi nekk ku mel ni PS benn nit moo fi nekk. Mm-hmm. mais suñu bëggee changer yooyu yëpp il faut que ñun tamit suñu texte yi que les militants apprennent à cotiser tey suñu cotiser nga xam ne lii di yow yaa xam moom du man maa moom du ma dem du ma sàmba lii ñi ñëpp ñoo ko bokk ku nekk mooy joxe lu mu am si si si géew bi loolu dina am changement. mais tey un président de la un leader d'un parti politique su waree gérer ay plus de 522 collectivités territoriales à hauteur de. commune bu nekk mu war a gérer un million deux millions deux millions c'est de l'argent c'est des moyens donc ñun ñoo war a changer suñu méthode boobu tey tey dafa am loo xam ne dama ko gëm tey le yàgg naa ko wax de dafa am benn croix de transmission boo xam ne qui a été faussée entre beaucoup de nos responsables su ma responsable am na ministre yoo xam ne tey ñoom ñoo deful le relais à la base tey le tout le travail fantastique merveilleux que le président est de faire pour Sénégal au niveau de la base il devrait avoir un tey ministre bi moo doon nekk le président de la république moo tax ma ne man des fois j'ai l'impression lu tax amul benn équipe de surveillance boo xam ne pour xool liggéey ministre bi dans sa commune te waroon na am des agents assermentés des gens yoo xam ne surveillance pour xool la mooy liggéey bi pour man la mooy liggéey nit supposons tey ma doon ministre ma dëkk numéro 64 en face de chemin mi 99 du ma wax waa 99 du ma wax kenn su ko mais est jar na ni may jox ministre parce que ministre bi tey quel que soit dossier bi nga war a jox rek dafa war a mën sukkandiku si problème mu askan bi parce que tey ñu fi nekk ñu war a jàppale askan bi jàppale askan bi dafa laaj na am humilité wàcc sa bopp suuf d'accord naa yow loolu tey su nekkee benn ministre boo xam ne amul popularité parce que élection local élection gox-goxaan la c'est un leadership de type local tey mooy koo xam ne moom la gars yi gis moom moo am popularité tey quelqu'un peut avoir beaucoup de moyens beaucoup de moyens alors que au niveau de la base amul tur boobu noonu amul euh, dem dem askan bi te maire mooy lan mooy koo xam ne day nekk si au besoin de sa population 24 heures sur 24 heures. d'accord mais René yow tey par exemple tey Dakar Plateau euh, su dee président Macky Sall wala coalition benn Bokk Yaakaar wax nañ ne leen ànd leen wala sunu candidat benn Bokk Yaakaar mooy Aliou si poson tey par exemple waa Dakar Plateau doyal si Aliou Ndoye doyal si Aliou Ndoye Euh, président Macky Sall jël Aliou en tant que ministre euh, imposé waat ko entre guillemets ñi dëkk Dakar Plateau mais boobaa René euh, munta ñàkk a wax ay militant na leen ñëw leen votel votel Aliou Ndoye exemple boobu rek laa la mën a jox ndax danga nekk ak Aliou Ndoye ci benn benn commune exemple boobu laa la mën a jox tey bu loolu amoon tey lan mooy nekk sa taxawaay. sëñ bi sëñ bi man damay politique. su ma nee politique mooy damay dem ak intelligence non pas avec passion que même au de l'émotion négative ce qui important il faut aller vers la raison objective bañ ko mu bañ ko waxal bii mooy son second mandat muy dem si muy dem muy dem peut-être troisième mandat il ministre su nekkee ministre donc cela veut dire que il est puissant am na lu am na lu am na lu mu fa def keneen mu ne ne dafa dara mais am na lu mu fa def man tey j'ai aucun problème à que le président décide man ban problème laa am mooy que nu waa AP Dakar Plateau nous nous devons parler si benn note tey dafa mel ni benn groupe suy tëgg day am note musicale artiste bi guitariste bi kuy tëgg jëmbe kuy yore guitare basse bi dafa war a am benn cadence ñun tey AP Dakar Plateau ñu am cadence tey waroon ñu toog rek farankulaay ne ah lépp baax na lépp mojji lan laa gëm ñu ngi war a wane suñu bopp ba poser président de la République une équation mu ne ah ñu ma gis nii sama parti la te ñoom ñooy sama famille ñii wan taxawaay boo xam ne tey su mu leen su mu leen peut su leen tabee war nañu mun gagner mairie bi wala su mu leen joxee leneen war nañu mun am leneen politique il faut être réaliste quoi c'est-à-dire que man je suis pas de ceux qui pensent que nous devons boycotter nous devons dire non à la décision du président de la République moom moo ne boo mu demee. ci tournée économique mu ne xam ne leen ma man yàgg naa def yàgg neen ma jox confiance ma def liggéey wane lu may def te yaakaar naa nu mu ko gisee nii kenn daa ko politique xalif général la si wàllu politique. d'accord mais tey par exemple tey euh, au niveau du département de Dakar ci élection locale yi ñu dëgmal ndax jàppoo ne euh, xëccoo dina fi am ndax tey ñenn ñi jàpp nañ ne Abdoulaye Diouf saar dafa bëgg a nekk maire ñenn ñi jàpp ne Amadou Ba euh, dafa bëgg a nekk maire maire maire Dakar. Euh, ñenn ñi sax jàpp nañu ne Amadou Ba ma ngi euh, ma ngi xool fa tey yëpp euh, Moussa Sy bi ci fi nga xam ne mooy Parcelles Assainies yéen benn bokk yaakaar est-ce que jàppoo ne au niveau du département de Dakar élection locale yi mm, problème mën ngeen ko am. mais ma li ma jaaxal si une journaliste yi pourquoi nañu bëgg réduire le problème de Dakar à deux personnes Abdoulaye Diouf Sarr Amadou Ba je pense pas c'est ça le problème c'est pas ça le problème c'est-à-dire que dans notre parti wax naa la tànk si njëlbeen bi le grade doomu Dakar la fi laa dëkk xa am naa fi jaloore muy keneen keneen mais musuma dégg musuma musuma musuma dégg musuma dégg Diouf Sané dafa bëgg a doon maire Dakar en 2014 man maa porté le projet de Abdoulaye Diouf Sarr pour dakaar maa toog ma identifier les responsables ma ne Diouf Sarr 2014 alors que xaw ma ko woon Moustapha woo ma ne ma René dama bëgg ne demal ma meeting marchand ambulant yi ak maître Djibril War sama kàddu yaa koy wax boo ma demee laa njëkk ne kii mooy candidat wu APR après Diouf Sarr ànd ak man mais dafa dafa ay tournée un peu partout moom tamit jamono boobu toog na rëbës mu ne fii si APR René Pierre mooy candidat part bi mais tey dafa am yeneen contexte yu différent 2014 ak 2021 contexte yi bokkul am na lu dox am na lu changé Amadou Ba dégg naa keroog mi wax si benn émission mu ne moom président lave loxo woo nekk dam lay def tëdd liste de Dakar moom mosu ko xalaat te nee na sax si waxam mu ne am na ñu fa nekk ku nekk mun na ko doon te président ba mu nu mu jégtee ba defee noonu yaakaar naa fi ñu fa tolloo noonu tey président su naree am su naree tabb kenn moom mooy tabb ne kii mooy list bi mooy pré mooy mooy kii mooy tedd liste bi te su ko defee ñoom ñëpp ñooy d'accord parce que seen militants yi ñooy seen militants yi ñooy contre de mais président moom moo yore moo yore big ab feuille bi saa waaye man mënu moo yore big ab feuille ma la tey man ne la saa waay jaaral fii ne na jaar fële saa ma dafay yoon neneen. mais Amadou Ba fi ne nii ginnaawam ban nag amul benn nomination. mais Amadou Ba c'est un fonctionnaire c'est un haut cadre il a eu à travailler avec le président de la République et jusqu'à présent il continue de travailler avec le président de la République man daal vraiment dama gis moom jàmbaare bu baax musuma musuma xool au auparavant liggéey bu muy def mais dama toog dégg ma gis de tout le temps les gens ont voulu le discréditer. Les gens ont voulu le lyncher. Et pourtant, Amadou Ba, autant il était ministre des Finances. mais ñëpp ñu ko doon topp moo tax mu ne dafa am ba ñu wooyee <laughs> tey Sénégal. Mhm. s'il le fallait les gens vont te lécher ils vont te lâcher et ils vont te lyncher mooy les trois L ba Amadou Ba nekk ministre des finances su duggoon su duggoon su duggoon réunion affaire yi da nga gis gàngoor moo koy topp parce que ñu ko doon topp. c' est des chasseurs de primes. ñoo xam ne gëmuñu dara. d' accord mais mais mais mais mais René au niveau national et au niveau national yéen coalition Benno Bokk Yaakaar ndax tey par exemple tey boo demee Linguère Aly Ngouille Ndiaye ma nga fa Ali Sale Diop ma nga fa euh, Samba Ndiobène Ka ma nga fa boo demoon tey Podor Racine Sy ak Aïssata Tall Aïssata Tall Sall. Euh, nga dem fu mel ni Louga nga dem fu mel ni Fatick euh, dañu gis ne boo demoon Saint-Louis tey Mansour fay ma nga fa Mary Teuw Niane ma nga fa dakaar gi nga wañ ko mu nga bañ ko nangu Abdoulaye Diouf Sarr ngi fi ak Amadou Ba mu nekk ñaari candidat yoo xamante ne tey li ñu wax ay candidat potentiel ci biir benn bokk yaakaar pour pour pour au niveau du de Dakar euh, mu au niveau national est-ce que yow sànq yaa ngi wax ne bu ngeen deful ndànk di ngeen ñàkk ay communes. au niveau national ndax bu ngeen deful doucement man problème mën naa am ci biir coalition bi. mais la moo tax sama xel dal dama dégg la sagesse du président de la république dama dégg lu mu wax keroog moo tax sama xel dal ma ne ah président mi ngi wax comme man loolu dafa mel ni ñu wax loo xam ne les gens se rencontrent et se côtoient c'est comme des atomes crochus tey président de la république man dama yàgg wax président de la république musul ati xeex donc yàgg wax. Mhm. mun naa du sama baram ko. mais dama gis léegi dafa ne élection yi dem nii liste parallèle du am tey dafa am ñoo xam ne ñu ñëw si yow nee la waa ji bugg la teg fenn ñëwul bokk suñu liste jox la suñu suñu suñu drapeau na na samp sa bopp moo tax mu ne loolu du am te yaakaar naa tey waxtaan dina am ku mel ni commune Saint-Louis Mansour Faye mooy maire ba mooy opposé a sama xarit Mary Teuw Niane c'est un brillant donc ku mel ni comme kooku noonu yaakaar naa waxtaan dina am te waxtaan su amee man dafa am benn proverbe mauritanien mu ne su mu la nee sa yére bi dafa salte ma bàyyi la noonu dam la tooñ ma ne Abdou Khadar sëñ Abdou Khadar sa yére bi salte na de mais am jëlal yére bi maa la indi benn solution te yaakaar naa président moom nu mu defee ba ba tënk parti bi APR alliance pour l'Afrique nga xam ne alliance bi dafa nekk dafa judd si frustration metti na woon trop mu doon bébé boo xam ne mu sooxe di raam ba toll fu mu toll nii te parti pouvoir boo gis de am ay bruit parce que normal cela montre encore une fois que notre parti est en gestation cela montre que notre parti est en vitalité donc lu may wax rek bi si tolloo te président muy commencé muy commencé waxtaan ay nit di consulter gars yi ba pare balaa muy toog ak waa benn bokk yaakaar te yaakaar naa kenn réeru ko mbir su dee wàllu élection laa la wax de le jour ji laa la de dina gis loo xam ne yuuxu dina jóge yi. yuuxu dina jóge foofu feebar. xalaat ngeen gagné élection fan yii gis nañ ko bi mu menacé si tournée yi. c'est-à-dire que du ma bàkku tant que demuñu si làmb ba parce que dafa parce que yàlla moo bëgg nit di am humilité tey du ma toog ma ne ah ñu ngi gagné opposition opposition tamit c'est des c'est des dans l'opposition y a des patriotes des gens qui sont bons ñoom tamit ku nekk ku nekk élection dafa dem ne ngay perte. d'accord même su nekkee équipe bu nga équipe football bu gën a ndaw. Mhm. suy dem. parce que dama rappelé en 1994 Barça ba mu doon joué ak Milan AC ba Barcelone moom équipe bu gën a mag si monde bi jamono boobu 94 ay ñoom ay ñoom Baquero ay ñoom Guardiola <laughs> mais ñu dem ñu dem ba si biir Milan AC dóor leen parce que naagu moo tax ñu dóor leen même chose a Milan AC ak Liverpool. donc ñun tey du ñu naagu mais li ñu wax solo la ñuy vigilance. wóolu suñu président de la République. mais mais euh, René fan yi président ma ngi ma ngi doon def ay tournée économique euh, ñeneen ñi jàpp nañ ne xumbaay beeg rumbaay bi nga xamante ni moo ci am maanaam campagne campagne déguisée la euh, ñu bari ŋàññi nañ ko ndax jàpp nañ ne hôtel yi ñuy loué carburant yi euh, xaalis bu sakkan a sakkan lañ ciy dugal loolu lan moo ci sa xalaat. mais xam na ñooñ di wax ñooñu dam leen di delluwaat ni jàngat école ni jàngat la mooy la vision du président Macky Sall président Macky Sall ku ko xam. c'est le champion de l'inclusion sociale c'est le champion de l'équité territoriale avant muy dem pouvoir dafa def deux fois le tour du Sénégal c'est la qu'il a vu qu'il y avait des disparités Macky dafa doon président boo xam ne dafa bëgg dafa bëgg le Sénégal des profondeurs mais ñoo ñoo ko fal sont les Sénégalais des profondeurs ñoo ko fal mais tey dafa toll ak fu àdduna di doxee ak mondialisation bi président mu dem mu dem di xoolaat ñooñu ndax lu mu waxan jamono boobu ak ñooñu ndax am na ba léegi rek leen renforcer loo xam ne mais lu mu demoon ay hôpital la mais tey santé man dama gëm santé pour tous tey soo demee Angleterre laa la wax de na feebar da ngay woo NHS 999 990 woo leen loo soxla ni na la ambulance wara a pul na ambulance ñu yóbbu la mais tey ñu nekkan ay ñu nekkan Kaolack Kaolack gars yi jóge ay Kaffrine ay Tambacounda war a war a war a dem yenn ay Kaolack fu nekk mais loolu day régler benn problème créer hôpital de dernière génération man j'étais à Kaffrine visité avant mi avant muy nekk à phase à phase échue man dama naa foofu xool mais ma ne vraiment ku def lii ça veut dire que kii am na bëgg na Sénégal am na ambition pour le Sénégal mais malheureusement on a une opposition boo xam ne loo mënti def rek ngi nekk di casse moo tax souvent dama ne. la spécialité culinaire sénégalaise du yaasa du ceebu jën c'est la polémique on se vomit dessus et l'opposition est dans ça. Euh, René Pierre euh, yow me yow nga bokk ci APR nekk ci euh, Dakar Plateau euh, ñu wax ci li nga xamante ni tey moom mooy découpage administratif bi Kër Massar gi nga xam ne def nañ ko département war a def déco redécoupage région de Dakar yow lan moo ci sa xalaat ndax ñenn ñi dañu jàpp ne mbirum politique moo làqatu ci ginnaaw. mais xam wàllu découpage un président de la République il a droit de le faire tey soo demee dëkk yu mel ni ay France au temps de de Gaulle de Gaulle fi nekkee ak Debré ni noonu def ay découpage mais la France a connu réellement son découpage au temps de François Mitterrand dafa am ñuy woy hypertrophie tey soo jëlee lu mel ni ville Dakar c'est-à-dire que si bopp bi day exploser mais Kër Massar soo fa demee man je l'avais dit ah Kër Massar dafa war a ñu en département dama naa meeting foofu yàgg na man a Fatou Tambédou ancienne ministre sama xarit ak euh, madame Mbacke moo ko organisé woon boo ma jëlee parole ma ne fii dafa doon en département Kër Moussa dafa yaatu. day tax c'est-à-dire que dans la vie tout est politique c'est-à-dire que c'est c'est malhonnête de ma part de dire que politique amul si yenn mbir politique day am mais lu am solo rek mooy lan mooy soubassement bi lu am solo mooy lan mooy njëriñ pour askan bi nekk foofu tey. keneen ku ñëw day def découpage. Wade nekk na fi keneen keneen keneen. on a vu au temps de Abdou Diouf dans les années 1996 lorsqu'on a fait lorsqu'on a lorsqu'on a voulu faire les communes en 19 arrondissements am na fi mais tey lu am solo rek mooy Kër Massar ak inondation yi gis problème yi amoon yooyu yëpp ni xam ne pour aller plus vite lu président wax mooy fast bi mooy affaire bi dafa war a mu ne na bar loolu moo tax ni indi découpage bi day ñëw day ñëw day ñëw corriger corriger lu fi nekkan. mais mais Barthélemy Dias dafa jàpp ne toroxal waa dakaar moo tax président Macky Sall koo def. Barthélemy Dias ñu ngi koy xamal comme moom ndaw la comme ñun ëpp ñu fit ëpp ñu fit Sénégal bi la bokk Dakar bi la bokk ñun ay ndaw ni comme moom tey président Macky munu mënul toroxal waa Dakar ñun waa ñun waa Dakar ni c'est-à-dire il faut que les gens arrêtent parce que président Macky Sall Fatick la jógee rek. mi bëgg wax rek day toroxoo waa Dakar mais ñu ni an ñu bëri ànd ak moom dëkku ni Fatick ñu bëri Dakar ñu jógee man mi di wax yow plateau laa jógee te plateau c'est plateau c'est à deux pas du palais présidentiel ñun Dakar yi gëm tey lu président def nii dama gis que njëriñ la pour askan bi la mais nit mënu ko gis tey peut-être d'ici dix ans quinze ans les gens vont se dire que way tey lu ñuy def nii baax na mais soo soo soo jëlee benn euh, moom problème ni ne la marché bi kii moo ko moom am na entre euh, soo demee au niveau de Thiaroye ak géejuwaay ni leen marché bi Thiaroye marché bi Géejawaay moo xam moom mais suñu corriger loolu ni xam ne lii ñu ñoo xam moom dafaat loolu ba mu baax vaaqe naa loolu day régler benn problème day tax ku nekk xam kam fa mooy place am pour diir encore une fois na ñoom suñu wolo seen bopp ñu dem si jog jogante élection yi ni xam ne président Macky Sall dina leen bàccaat encore mais René euh, Pierre ay jamono frustré woon nga fi léegi dafa mel ni da dal lu xew ah, sëñ bi yow loo bëgg wax si loolu. waaw frustré woon nga euh, am na lu bari lu la naqari woon ci biir euh, ci biir APR ba nga xam ne yéen amoon na benn euh, kuréel sax ay militants authentiques yoo xamante ne yu APR yoo xam ne doon ngeen dajee ci seen biir meroon ngeen maanaam je veux dire. sëñ bi soo déggee soo déggee ma dégg moo frustré c'est-à-dire du frustré man dama noonu boo xam ne dafa am lu ma yàlla bindee su ma gisee insulte dama koy xeex. am na ñoo xam ne duñu xeex yi ñu toog jooy noppi tala loxo ñaan yàlla man yàlla may na ma kattan yàlla may na ma fit damay xeex dama koy repousser fu mu munti jóge mais dama toog dégg à un moment donné ma dégg président Idrissa Seck mu ne mburu asoo ma dégg gars yi gars yi ñëw may sëñ bi tamit man du ma nekk Angleterre liggéeyal président Macky Sall ba fi mu toll nii ba mu koy gëm gars yi kenn gëmu ko def si sama alal def si sama temps sama énergie mi ak ñeneen ñeneen ñeneen au passage maa ngi nuyu le mouvement collectif des militants authentiques de de de l'APR caajaab bi moo ko sas moo ko dirigé may nuyu ku mel ni Ibrahima Pouy ku mel ni Ñambe John parce que yaa ngi ni wax ku mel ni euh, Baye Gana Diop ku mel ni Tamimu Wan ku mel ni Matar ku mel ni Djili Seck ñooñu ñoo sas affaire bi te métti na woon trop te ñun suñ combat doon un combat juste pour une seule personne c'était un combat national parce que beaucoup de gens ñoo dugg adhéré si loolu mm-hmm. bari na c'est pas parce que tey ba may wax loolu maa ngi doon liggéey de bari na ñu bari ñu yaakaar musuma liggéey maa liggéey maa ngi doon liggéey jamono boobu parce que jamono boobu maa ngi nekkoon Prodac laa nekkoon avant Prodac le ministre Souleymane Diop sama xarit sama grand frère moo ma jël ba ñu xamante Europe yi nga xamante woon mu ñëw Angleterre jóge Canada ni def conférence pour jàppale président de la République ma ñibbi Sénégal yàlla def mu doon ministre. mënoo ma René yow laay nommé chef de cabinet ma ànd ak moom gënga ko chef de cabinet au Sénégal et l'extérieur ma nekk son chef de cabinet au PUDC ma nekk au PRODAC yàlla def lu taw jër président Macky Sall yóbbu ma ATP moo tax je dis souvent que mon seul interlocuteur c'est le président de la République mais attends sëñ ñun on a ñun on a de l'ambition notre ambition ne se limite pas à être dans un poste c'est-à-dire que on est national on est international on défend le peuple et parti est dans le le peuple dans le parti. c'est pas parce que c'est pas parce que tey nit kaas na dara rek parce que nit dafa frustré non frustré wu ñu de c'est-à-dire musuma mere président de la république mais su ma naree wax dëgg su ma amee lu may xalaat damay wax man bés boo xam ne sëñ bi mënuma wax loo xam ne gëmuma ko damay toog ma dem doon sëriñ daara. d'accord jërëjëf euh, René léegi ñi nga xamante ni ñooy euh, euh, mouvement pour la défense de la démocratie m 2 ñoom dañoo bëgg amal li nga xam ne mooy rassemblement. Euh, ngir ñu libeere détenus yi nga xamante ni teg nañu leen loxo ba léegi nii rassemblement boobu noonu euh, yow lan moo ciy sa xalaat ndax gis nañ ne euh, sëriñ bi waxoon na ñu fexe ba dal am ñu gis ne opposition bi nee nañu danañu rassemblé wu président Macky Sall tamit lu jëm ci wàllum détenu yi ñu bari ñoo ngi doon sàkku mu daal leen libéré mais ba léegi ni amagu ci lan nga ci mën a wax René Pierre. sëñ bi man lu ma gis si wàllu rassemblement boobu noonu tey suñu demee ba Sénégal. loolu day wane que Sénégal c'est un pays démocratique man contre ma ñoom nii bu ko def de. parce que loolu day renforcer suñu démocratie mais sëñ bi soo demee dëkk boo xam ne nit mënu fa manifester nit mënul wax dara lu muy xalaat yaakaar naa dëkk war nañu ko xoolaat c'est-à-dire que on est plus au culte de la personnalité on est en 2021 te yaakaar naa fii lu mu fi lu fi am amul yeneen dëkk yi fi am. Et pourtant, à chaque fois, il y a des gens qui tirent sur nous, qui tirent sur le régime pour dire que le régime, c'est antidémocratique. Et pourtant, dans d'autres pays, <laughs> gars, ils disent ça. Mais le meilleur règle, il faut... Non, il faut aussi laisser la justice sereine, indépendante. C'est mieux, dama dama la tontu dama ne il faut laisser la justice sereine et indépendante c'est-à-dire am na am na benn affaire boo xam ne mii devant la justice ngay wóolu justice bi wóolu magistrat yi wóolu suñu juge bi ni xam ni ñu ngi def seen liggéey président Macky Sall son problème c'est lan c'est de régler le problème des Sénégalais il est au-dessus de tout le monde tey c'est le président de la justice c'est le président mu de tous les journalistes muy man mi yow mi keneen keneen mooy suñu président donc ñu def bëgg a def euh, rassemblement boobu dama leen di encourager te ma leen di xamal des fois sax dafa baax su ñoom ñuy waxtaan ak partie au pouvoir di leen inviter seen rassemblement d'accord mais René yow yaa ngi wax sànq opposition bi am nañ sañ-sañu marche xeet yooyu mais président Macky Sall dañ koy dem dañ koy tuumaal kane moom dafay noot ñi nga xamante ni tey ñoom ñooy opposition bi loolu euh, yàgg nañ ko ko tuumaal kane képp koo xamante ni jàpp nga ne tey euh, candidat nga wala tey adversaire am nga bu am doole dina fexe euh, ba néewal la doole loolu li ñu koy tuumaal président Macky Sall dëgg la bari na. sëñ bi xam man du ma dugg si domaine boobu xam man la laa gëm mooy président de la république. lu mu ko xamee moom day tëdd ñangenaay du dugg loo xam ne xamu si dara. tey ku nekk dafa am loo xam ne problème justice la est-ce que yoram nekk na si ah, moom am na ay jamono boo xam ne fii la ko gars yi jiñ blanchiment d'argent et pourtant il avait répondu dem képp koo xam ne justice xalaat na yow war na répondre par rapport aux deniers publics saa waay yaakaar naa sa akulaay kalaay war na répondre d'accord jërëjëf euh, René waxtu wi jeex na lan ngay tàggoo. waaw maa lay jaajëfal di ne ñun dañu war a booloo nekk benn. Mm-hmm. parce que aucun de nous ne peut aller seul ni xam ni que Sénégal yooyu sénégal yi tamit ñooy xaar si au grand rendez-vous war ni marquer l'histoire soit il y deux choses soit on fait l'histoire et soit l'histoire nous fait et euh, man j'en profite pour dire euh, di jaa di maa ngi profite tamit fàtte naa xoon ña war naa de départ. di jaale journaliste yooyu gaañu leeral na xam ne leeral sama kër la yàgg naa fa dem di jaale seen président di jaale bëpp journaliste di jaale parce que métti na trop yéen ay jàmbaar neen su néewoon yéen information du am dara du xew te di blessé yooyu tamit président tamit Macky Sall maa ngi koy jaajëfal gis naa bu mu amee ba léegi il est parti sur les de l' accident loolu yaakaar naa loolu mooy la réactivité et ce que nous président de la République te ñu wax rek Sénégal benn bopp la Sénégal dëkku El Hadj Malick Sy la Sénégal dëkku Cardinal Thiandoum la Sénégal dëkku Seydina Limamou Laye la dëkku Sëñ Touba la dëkku El Hadj Malick Sy dëkku Ndiassane la dëkku fu mutu nekk ni xam ne ñun benn bopp la élection yi dem ne mun naa bañ bokk yow camp mais war nañu dem si jogante bi si jàmm salaam parce que Sénégal su yàqoo du ay Ivoiriens ñoo koy defar du ay Togolais du ay Béninois ay Sénégalais ñooy defar ñoo si en pâtir donc tey ni delluwaat. à la tolérance universelle ni delluwaat ak am empathie ni xam ne élection yi dina metti de mais ñun ay sénégalais ni au soir de ces élections c' est le Sénégal qui en c' est le Sénégal moo xam moo ci génn victorieux Sénégal moo jënn fort di euh, jaajëfal ba mu ñëwee fii tey gis naa am ne aménagement yu bees. yaa ngi waaj am lu mel ni réew mi réew mi télé. réew mi TV te loolu c' important lii mooy wane que si kër bi ba mu fi ñëwee ba léegi am na ay progrès nit noonu lay nit noonu lay demee. loolu la Eraf Erafet Depaze wax benn philosophe mu ne un homme qui va à la rivière à chaque fois qu'il va il se baigne à une eau cela veut dire que dans la vie il y a ce qu'on appelle le processus de changement et le président Macky Sall est dans le changement et dans le fast track nee na na bar na affaire yi bar na nooy. jërëjëf euh, René Pierre euh, Yahoume euh, moom mooy coordonnateur du mouvement pour la défense de la République moderne nekk responsable politique de l'Alliance pour la République ci Dakar Plateau ñu koy sant bu baax di ko gërëm di rafetlu teewaayam. Euh, wax dëgg yàlla ku disponible la aussi euh, ku ñemee tontu tamit la aussi si laaj yi ñu koy laaj ñu koy jaajëfal bu baax a baax di rafetlu tamit euh, taxawaayam au niveau de Dakar Plateau kon mbokk yi li moo nekkoon seen émission pencum réew mi ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h Mamadou Diaw Diallo moo nekkoon ci wàllu machine bi mbokk yi ñu leen di jox dig daje samedi bi di ñëw incha allah ci beneen jataay